mool mool mool góor gi ba jàmm la lu ko waaw dëkk baa ngee toj lan mooy toj dëkk parrainage bi parrainage gisal pécc ma ah ña ngaa parrainage rek la teg ñu ngay bind maa la wax li yow daal xaaral ma tegoo sama mbubb ñu dem bind gaawal nijaay nijaay waaw foo jëm andi léegi mu nopp eh damay bind ji bu andi noppee nga def ah eh def moom mi sax mën naa ñëwaale lu dem jigéen ñi si lañ bokk ma ne ñoom ñëpp si la ñu bokk ah acca bokk kañ dem kañ dem bind ji ga kañ dem bind ma cin maa ngi ñëw damay pare nga ji. ummi loolu ma fi bàyyi. ah maam Sall yow it pare nga ji. ah waaw waaw si nit ñi la ma bokkal. ah lan dem daaw waa ma ne waa ma ne lan la waaye mbokk mbokk mbokk. waaye aw aw aw aw la ma waa ma ne lan la Le parrainage est une procédure par laquelle les candidats sont présélectionnés par des électeurs. Il s'agit donc d'un système par lequel l'électeur donne sa caution morale en faveur d'une candidature. C'est donc un parrainage citoyen. mbir mi nii la tëddee. faw candidat bu parti politique. wala bu coalition parti wala indépendant. bépp citoyen góor ak jigéen bu nekk ci liste électorale bi te mu am carte électeur mën na ci coobareem tànn benn candidat mu pare ne ko aaye nañu dem ci bërëbu takk der yi maa bërëbu fajukaay di sàkk ku wax da ngeen di pare wax dafa pare la ah waay xam nga damay signé waay signé képp moom fii CEDEAO bi nga war a am de. CEDEAO boobu oh. ne. kon taxawal ma xool boobu. oh mu ngi ne ba noppi. billahi ne ngeen. dama ñëw mu laaj ma maw tur. ak saw sant. laaj ma mam numéro électeur. ak carte d'identité bi. ba bees bi nag carte d'identité bu bees bi. ah la carte d'identité CEDEAO. laaj ma nag faa dëkk laaj ma sax fi ma dëkk. ak fan ngay wotee. mu ne ma signal rek ka ma signal. waaw rek daal di koy delloo big ba ñu dem. wallaay léegi nag. dafa am kanu war a signalil fii. waaw mu ngay dem. mu ngi kaa signal ba nu paree dina lu ñor. xam naa ne moom faaw ma signal ko mënut a ñàkk daal. ah déedéet déedéet déedéet déedéet. électeur bu ne. benn candidat donc la mën a parrainer. un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat. ah qu'une seule fois dans une élection. ngir ñu nangu sa candidature foog nga am limu signature bi la laaj. maanaam toll na si. cinquante trois mille juróom fukki junni ak ñett mhm. ak ñeenti téeméer ak juróom fukk juróom ñaar kon de dina am candidat ya bari ya dul bokk waaw surtout candidat yantu yi parti juróomi ni cundum nag ah aw cundum parti moom cundum la jabara baax i doomam kooku du bokk famu mu jëm nga nag noonu la demee mhm. xam nga ne parrainage aussi dañ ko def ngir mën a segg ah. maanaam euh, yi nga xam ne Marie Ndoye ah Marie Ndoye ah pare naa ba noppi. yow man maa la njëkk a pare ne pare naa bu yàgg man mii ba noppi. kon de parrainage baa ngi toj dëkk bi. parrainage baa ngi toj dëkk bi. waaye yow yaa ngi toj dëkk bi. sa añ bi da nga ko doon yàq ji. kan de ma yàq añ bi ñëw. ah yow man nañ dem añ